Salut les amis de eSportivier et de Baba Show. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci Louis de like. Merci Louis de des Merci également de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois. De partager une information inbox sénégalais. Fait pour le maintenir 14 régions du Sénégal. Rok Rokhad, Gok Gokhad, Ning Len Djadjo Fol. Ñu nek également ci la l'hôpital ci kër de février. yalla na suñu borom fëgg seen bop ñu rek jamm ñu nek ci kasso yi. Ngeen xamné aussi erreur judiciaire gi ñu defal mo leen fa yobbu suñu borom génn leen fa déloir leen seen njabot. Ñi dédou aduna suñu borom xal leen dajane fi do ci gaay té yéxé ñu on avance ensemble dans la magie de Baba Show show et d'eSport TV. L'actualité en contenu actuel de Nouveau Sénégal, et Sénégal, il risque de perdre la première place ou la deuxième place à la Horti, donc éliminatoire Coupe du Monde. Aussi, Lenny Yoro vers le Real Madrid, Cristiano Ronaldo, record, le Nouveau Sénégal, Wassare, Andichi Ak Yen. Là, encore une fois, Mbok Sénégal, il invité Ngendem aussi qui Babo Show, c'est un point Mercato, Dion Lopi, à Club Top également, revenir aussi sur la Cannes, Binga Hamna Nyom Sadio Manadal, Nyon Créole, donc euh, unique euh, fois, Binga Hamna, Amna Coupe d'Afrique, Bilo, Nouveau colère Andichi Ak ak yéen actualité bi ñu fas yéene commencé ki nga xam ne mooy Cesc Fabregas nee na moom ak Eden Hazard ba nekkee ca Chelsea dañu doon tooñee Ngolo Kanté mooy Ngolo nii parce que nee na dañ ko doon tooñee brésilien parce que même bu fekkee ne du brésilien dañ jàppoon ne rek li mu am ab technique ak li mu mënoon nekk na gars c'était donc à part pendant ce temps nag Al Qadsiya nekk club bi nga xam ne moo du côté de l'Arabie Saoudite daal di recruter ki nga xam ne nag donc qui euh, di Nacho le capitaine du Real Madrid day signé foofu noonu ah donc salaire bu baax baax la fay daal di am moom mi ngi jël décision jugee finalement du côté du Real pendant ce temps Madsen wax ko Aston Villa boucle l'arrivée donc du joueur euh, de Chelsea prêté à Dortmund mu ñëw ren Aston Villa man ne ma Chelsea lan moo leen dal ba booy bi koy sincèrement weere ngeen pendant ce temps Michael Olise moom accord amne selon qui euh, di Florian Prettenberg Mom, ak ñi xam donc waa Bayern Munich ba 2029 la war de signer contrat Michael Olise nga xam ah, Chelsea de ko mais Boy, bi li imposé ay salaire ak yooyu noonu moo taxoon donc mook agent Chelsea daal ci mujjee génn Yoro selon plusieurs médias notamment également Fabrizio Romano wax na finalement accord de principe la am ak Real Madrid Paris Saint-Germain de ko mais moom nee na fi fin Real la jëm ngir mën fa

ah wala bu ñuy able sax able bi day am option d'achat bu dëgër loolu daal la ñu bëgg ndax temps de jeu la bëgg Dani Olmo nekkoon également ci euh, petite catégorie bu Barça et tout moom nag nee na dàqul dellusiwaat du côté du FC Barcelone moom nga le joueur hein, du RB Leipzig suivi par le club Blaugrana moom nga c'est un joueur très très très talentueux Qui n'a di Frankie de Jong waa Barça nag dañ ko proposer prolongation de contrat mais nag pour wàññi salaire am kii nag di Frenkie de Jong ba léegi daal joxawul réponse parce que tamit salaire bi moom dafa nekk salaire bu duun prolongation contrat également waxagu ci euh, dara loolu daal fi ne ni mooy xaw a à euh, ci xelu waa Barcelone kii nag di Messi ni hein, ngi Messi ni l'un lañ koy euh, woowee moom nag fi mu ne nii dem na signé initialement du côté des Blues de Chelsea. Euh, Théoul, à l'âge de 18 ans hein, notamment en euh, juillet sous mois juillet 2025 les matal 18 ans d'aller rejoindre le club des blues qui nak di Leroy Sané euh, nga xam ne nag Julian Nagelsmann wax na ci né Leroy Sané nek na jour bo xamné ne nag ci blessure la jógee mais jour la bo xamné ne gaay gars yi bëggul di tok ban ah mais amul benn problème day junj rek né li ñu xamoon ci boy bi boy bi daal mangoo ah mais tamit bam fa duggé sax temps bu ndaw bu mu am ak Allemagne wane wu fa lutax ñuy wax ñi nak di Portugal ñoo do Turquie ah dañoo wane ñoo leen ëpp doole 3 bi à 0 Bernardo Silva ki nga xam mooy ak ñu yoon daal dugal ci camp ah, Bruno Fernandes dugal ci passe décisive bu Cristiano Ronaldo mais aussi ki nga xamné nak nag ah kenn du ko présenté xam ngeen gaay ni nii eh? xam ngeen soxna si xam ngeen ko georgina mi ngi woon foofu ah, cette année li nga xam mooy matchu CR7 l'épouse de Cristiano ou la compagne je dirais de Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez ngeen gis ko si nataal gi kii nag nga xam ne mooy donc Bernardo Silva moom la ñu tabb gars yi mu nekk man of the match le portugais bien évidemment daal di dugal le euh, but du Portugal premier but du Portugal moom nag la ñu daal di jox mm, ki man of the match def na nag match bu euh, correct Cristiano Ronaldo qui bat un autre record mooy le premier joueur de l'histoire de la Coupe d'Europe bu daal di joué 19 matchs consécutifs à hein, ci donc euh, coupe d'Europe en tant que euh, titulaire Cristiano Ronaldo 14 buts 7 passes décisives tey def na septième passe décisive donc le meilleur buteur et le meilleur passeur de l'histoire de la coupe d'Europe pendant ce temps a mauvaise nouvelle pour le Sénégal ndax donc RDC de porté réserve ñi nga donc Soudan réserve nak RDC est le premier à 10 points

d'Europe bi ci coupe du monde bi plutôt qualification donc na nek lo xamné gaay dina xawa doy war gaay yi li ma nekkoon information ñu jox on se donne rendez-vous tout de suite sur li nga xamné donc Baba Show pour parler du cas Dion Lopi ak aussi yenen point mercato mais di leen invité ngeen dem ci euh, TikTok bi eSport TV 1 le mi ngi ni ngeen daal di dem abonné ci agrandir la famille ak aussi ci Instagram di nga xamné moy mooy donc eSport Inter ngeen gis ko mu nek ni gaay yi di like woy di abonné on avance ensemble dans la magie de eSport TV de Baba Show bu bari ci yéen abonné suñu la ngeen jëf